ay ñoo ko sargal maadu mbigaan drapeau kan ñu ni leeti seen a mbelaw ngiij ku wax leeti seen wax rëg-rëg moomu caare maa ngi ziar ak seex ju moomu caare yembar bi maa ngi lay ziar mënoo dara dil jëm di yëngal comme seex ngir yàlla yonente bi maa lay ziar bu baax di ziar Malick Sarr sa copain tamit ah garage gaynde maa ngi koy ziar bu baax a baax a baax ba ah, père leeti ñu ngi lay ziare ñu ngi di ziar baax mm-hmm. euh, nga may ma rek mm-hmm. ma ay meilleurs vœux ci Senegal ak liko wër di ñaanal nit ñi 2023 bi ñu dugg ñu tambalé ko ci bismillahir rahmanir rahim jeexalaat ko ci alhamdulilahi rabbil alamin comme euh, niko ñëpp di euh sant nañ yalla bu baax di ñaanal ñi nga xamanté ni ñoo débuté won ak ñun 2022 bi yégalé wuñu ko du yalla subhanahu wa taala mo mo dogal ñun ñi fi des yàlla nañ fi yàgg lool a ñaanal di nuyu kalifa diine yeeg kilifa aada yi nga xamante ni moom lañ fekk fii ci jilaas tey di nuyu mboolem waa jilaas ak li ko wër ndax ay dëkku cosaan lañu di nuyu ancien gloire yi yaakaar naa ne balaa ma génn kër gi damay njëkkee ci Modou Mbingaan mi nga xamante ni ku ne xam na sama digganteeg moom teg ci ñoom jaan jilaas teg ci ñoom idi, teg ci ñom idi ak képp ko xamanteni rek daan nga tak ngemb te dëkk jilas ndax wax dëgg yalla ay jàmbaar lañu di nuyu aussi samay collaborateur samay frère yi nga xamanteni mom la andal di modu, muud sen di baka di nuyu aussi vraiment internetu c'est internet di ah di la le rek ñu ñu gëna abonné ndax affaire yi gëna am doole dal. waaw mm-hmm. waye ton nga nak ku yaru moom moom dafa yaru moom. <laughs> tooñ nga ku yaru daal mm-hmm. waaw. dëgg kooku mooy moom Sopp maa ngi koy ziar caalaan ak ko wër daa yembar de kooku mooy loolu ñoom nag seen dëkk moom jiitu nañ gars yi si njom ñal làmb bëccëg la ñuy tëgg ñoog waa baasul mun moom tey ji lay jeexal mais làmb bëccëg la ñuy tëgg gars yi nañ ñu si dimbali ngeen gën see jàpp gis nañ sumloog bërki dem ay image yu rafet diggante 3 heures jàpp 4 heures 5 mu leer naan ñi jaru sax lumière yi dañuy arrangé bu ko defee kenn ku nekk teel a ñibbi borom oto yi gis seen bopp station yi xam nga léeg-léeg gars yi dañuy panne si àll bi duñ gis station bu tijji léeg-léeg nga bëgg a ñibbi doo gis oto bu la yóbbu bu dee bëccëg la nag di nga gis oto bu la yóbbu kon ngeen gën see jàpp bu baax a baax léegi buñ jugee si loolu ah, comme ni nga ko waxee ñuy souhaiter ñëpp rek bonne et heureuse année di ñaanal ñëpp jàmm atum jàmm atum naataange tey nga ñëw fii si Djilass ah, sa bisu xarit ah, ay doomam di ko delloo njukkal daal di lay tuddee bis bi tey ban yëg-yëg nga ci am waaw sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu vraiment ñi nga xamante ni ñooy organisateurs yi muy doomam yooyu nga wax mënoon nañoo jël seen esprit jëme ko feneen wala jël seen alal jéemi ci leneen ni ki tey bu leen neexoon na dañuy tëgg soirée woo ñeneen ñu ñëw jëriñoo ko mais beneen idée lañ am idée boo xamante ni vraiment ku ko gis xam ne lu original la muy ngay sargal ki nga xamante ni mooy sa waajur xam nga yal na la guddal fan yi mais toog fii ba ñàkk sa waajur mujj ci ginnaaw ngay def loo xamante ni jàpp nga ne bëgg na ko yaakaar naa ne ci dundam loo ci mën a def nga def ko yaakaar naa ne moom moo ci solution bi kon ñoom wane nañ yoon bu rafet a rafet boo xamante ni wax dëgg yàlla chapeau à sama yëg-yëg fii nag yaakaar naa ne Djilass moom du dëkk boo xamante ni dama naan guléet yaakaar naa booy ba man lu ëpp fukki at ak juróom xam naa ne maa ngi fi ñëw di seetaan lamb moo xam lamb ju mag ji yeneen teraanga itam yeneen xew-xew indi na ma fi muy xew-xewu jàmm muy xew-xew boo xamante ni itam safaan la kon maak waa Jilaas moom yaakaar naa ne Leyti ak Madou Mbingaan rek saabu tuuti waaw donc yaakaar naa moom bu fekkente ne euh, bokk na ci notable Jilaas yi yaakaar naa ne wax dëgg yàlla fii moom duma fi doxandeem daal comme ni ma ko mun waxee. kon li wone ne rek ne nit ki euh, Madou Mbigane sori na ci yow mooy lu toll ni 31 décembre kilifa gu toll ni yow nga waroon a toog te ak njaboot yi war a feetandoo ñoom nga daal di koy bàyyi lépp daal di ñëw fii rek wone na li nga xam mooy euh, euh, cofeel gi nga am si moom ak li nga xam moo dox seen diggante mais ko xam léegi tamit du ñu ñëw gis ko te duñ dugg tamit si diggante moom ak ki nga xam mooy le grand champion Reug Reug borom yi ak combat bi nga xam ne moom ngeen dëgmal dañ si cof tuuti rek loo xam ne loo ñu si mën a sànni ak foo dañ ci toll waaw sant yàlla bu baax comme ni ma la ko waxee rek combat bi ñu ngi ci comme yeneen combat yi donc wax dëgg yàlla préparation yi alhamdulilah euh, ñu ngi ci comme nañ ci nekkee woon di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may ñu ndam. Mhm. comme yeneen combat yi gars yi ne combat bi moo gën a métti si combat yi ngeen loon am de. waaw euh, ku nekk nag am nga am nga droit wax dëgg yàlla waxee li nga xalaat ak waxee sa xam-xam mhm. mais ñun moom dañoo jàpp ne rek. wax deug yalla combat yëpp euh, ñoo parce que xam nga rëg-rëg aussi ku ne dafa wara a c'est un produit de la lutte traditionnelle. pure ak simple. kon euh, kooku euh, jàpp naa ne nekkatu fi di catégoriser ay mbeur ko xamné da nga doon dem ci ben séance ñeu fekk fa ay 120 lutteurs yag ngeen ko fekk Adrien Senghor euh comment dire je Ibamar. Mm-hmm. wala yenen dëkk Joal. dëkk cosaan yëpp nga xamante ni yàlla dimbal nañu mu jël fa drapeau ay cent nangam lutteurs nga fa doon fekk wala ay quatre-vingt et te kooku ku ne xam na ne munoo cee bañ a tër juróom-ñaar wala juróom-ñetti champion yu wóor doog a mun a wax ne yooy gàddu raaya bi kon kooku noonu yaakaar naa ne daal lépp lu ñu munti def daal xanaa dañu koy ñaanal yàlla rek yàlla lafal ko cat yàlla may ñu ndam ci kàttu yàlla ak mbaaxam dañuy baña euh, guddal rek ñu daal di ko fi teunk ñu dugg ci biir arène bi ñu xol boy ñu ñuy bëré ak euh, ambiance bi ak ñom seen léyti nan day def ah, tamit xam naa père Madou mom tey moom dina maye bi té <laughs> cant ngërëm ñal waaw jërëjëf jërëjëf ma ngi sant ñëpp di gërëmaat ñëpp rek wax dëgg yalla mhm. di sant bu baax ñi nga xamanteni ñom la andal ndax comme ni nga ko waxé 31 décembre euh wax dëgg yalla du lo xamanteni ni yomb na ci ñun waaye nag suñu digganteeg ki nga xam ne moom la ñuy sargal ñun rek dèjà war nañ ko sargal kon buñ demee ba am koo xamante ni daf ñu koy sargalal mhm. yaakaar naa ne amatuñ ci le premier ba le 31 mhm. waaw di sant ñëpp rek ñi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñoom la àndul mhm. ku mel ni du mee toog ak bakkam yi tëdd waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp rakku Maadu Mingane bi yëpp ñu leen di ziar di leen sant bu baax a baax. ba ci kanam. acca kon yéen a ko gisandoo ñu dugg si biir arène bi xool li nga xam ne mooy làmb ji ak niñ koy doxalee ak ban xale mooy eh, eh, gàddu raaya bi ni ngeen gis nii nii ah Djilass ni mu amee ay ancien gloire ay ndaanaan noonu la amee tamit nouvelle génération bu dangereux. ay Maodo jilas ay jijak ay Guy gi jilas ñu ngi fi nek xalé yo xam ne faka fa machallah macha allah lamb joo dem fekk len fa ñuy def li ngeen xamni mom lañ mën ak luñu mënul fi ba Ndorong Lok bo gisee kérok jijak ko saway mu ni ma la landa manako da nga wërta jël lo wara jël lu nek rek ala kulli alin bu yalla ne ya ko mom dang kay jël dafa bindu ci tanki dem ba demi final daanu binduwaat si poids lourd dem ba demi final daan favori yop, demaat ba demi final daanu mu ma la landa manako jik ko mu ma manako lamb ji momoko loo moom rek ngay jël waaye kom ni ko rek ak Momu Caari di waxee euh, euh, euh, fayaa ko ba ñoojoor ñoojoor ba bétanti bëgg nañ ñëpp ndax loolu <laughs> Momu Caari moo koy wax quoi <laughs> maa ngi lay bëgg mooma sopp